man Papa Diène laa tudd imaam laa si luxus kër Yusu li ma bëgg expliquer fii mooy maanaam guy yi ngeen gis nii pépinière la li tax ñu def ko mooy maanaam guy yi nga xamante ni jot nañ ko fi rey su ko defee ñu mën ko remplacer si guy yi ndax boo gisee loolu ñu wax ko mooy am na ñoo xam ne ñu ngi nekk si média bi di wax ni ñun dañuy rey guy yi te guy yi niñ koy reyee ñu ngi koy préparer pour pépinière bii moo tax ñu ñu defar pépinière bi pour ñu remplacer guy yi nga xamante ni moom la ñu rey moo waral pépinière bii ngeen gis ni guy yii nii kon loolu du wax yoo xam ne bon yéen na maanaa waaw lépp loo xam ne ñun ñu ngi koy def dañ ko teg si yoon ndax même bu dee sa kër même bu fekkente ne am na am nga fa garab goo xam ni mu nga fa sax boo ko fa jëlee am na noo koy remplacer kon lii du loo xam ni jaaxal na nit ñi ñoom li ñu wax nag loolu du loo xam ne lu am la loolu du logique li nga xam ne mooy logique mooy lépp loo xam ne def nañ ko si àll bi jël nañu ay matukaay yi pour remplacer loolu te ci phase boobu lañu nekk ñoo ngi siy liggéey bu baax a baax a baax baax waaw. leneen guy yi am na temps suñu maam yi guy yi dafa daan meññ ñu koy witt di ci jaay li nga wax bi. ci même temps laalo la. pour ñu ciy def cere. mais bi mu demee ba bekkoor bi ñëw guy yi amatul njëriñ boobu parce que sàmm yi dañ koy gor di ko yoon nag yi mhm. ba tax na guy yi lañ ci soxla woon mënuñu ko ci am yàlla def nag indi fi projet bi projet ba mu ñëwee lépp loo xam ni war nañ fa jaar jaar nañ fa ndax nit du gis garab rek ñëw gor ko ku ne xam na ni amul droit boobu kenn amul droit boobu kon guy yi nga xam ne dañ leen a daaneel fii yëpp ci yoon lañu jaar man mii maay président commission guy yi ci Mont-Rolland Luxus man maay président bi képp koo xam ne maa ngi lay gis ngay guy gor guy fii damay woo LTAI LTAI ñëw def liggéeyam. di ngeen ci jokkoog waa euh, Eaux et Forêts. waa Eaux dañ siy jokkoog ñoom parce que lii bi ñu koy commencé projet ba muy commencé garab yi waa Eaux et Forêts ñëw nañu fi waxtaan nañu lépp loo xam ne war nañ ko fay fay nañ ko ñu jox ñu autorisation ñun ñu liggéey kon dama yaakaar ni. loolu du wax boo xam ni war naa mën a yàq xelu nit lii yàq xelu nit di loolu ñun liggéey moo ñu tax a jóg ñoo ngi liggéey lépp loo xam ne nag gis nañ fi muy lu baax ci suuf si ñun dinañ ko fi def incha allah